salaamaaleykum sëñ bi nangeen ngeen def waaw dañ doon laaj tey ji li ngeen xalaat ci motion de censure bi euh, opposition bi wax ni mën na am ñu dugal ko ah loolu moom du yomb ndax gouvernement bi fi njëkkoon defoon nañ ko mais sottiwut kon bii dafa teel lu amagut un mois deux mois nga ne nañ ko def pour disqualifier euh, premier ministre bi daaneel gouvernement bi loolu du yomb loolu buñ ko jéemee duñ ko mën waaw loolu moom duñ ko jàpp nga ni lan moo leen ci mën a fekk ñoom opposition bu bees bi. coono rek coonoy kese moo leen cee fekk parce que loo jéem te mënoo ko sonn rek te dafa teel dafa teel ñoom dañ teel a yëngatu waroon nañoo may pendant un door a wax dara mais dafa teel coono rek moo leen ci fekk waaye leneen du leen ci fekk parce que ñoom buñ ko defee aan ci nit ñi ña ko defoon coono leen cay fekk xam nga gouvernement neexu da daaneel kon coono rek waaw. gis nañ tamit ni gouvernement bu bees bi bi mu ñëwee dafa def euh, reddition des comptes maanaam saytu ñi fi nekkoon euh, yor alalu réew mi nuñ ko doon doxalee ku ci nekk boo fekkee am na li nga jël nga mën ko delloo loolu yoon la ndax kenn nit warta mën a yore ay vingt milliards te askanu Sénégal amuñu doole kon liggéeyaloo ca poste bañ la defoon dara yow sa bopp rek nga doon liggéeyal comme nag sa bopp nga doon liggéeyal nga foogoon ne changement du am changement am kon ñoomi dañuy sansé rek la nga jël nañ ci xaj yok ci dundu bi yok ci santé yok ci lepp waaw baye la la ngay dundé rek waaye 20 milliards kenn wuro ko yor dafa duut yoon ci Sénégal réewi tubaab bi sax lu ñu ëpp ëpp alal kenn duko yor waaw parce que lo ci mënta yorit kenn mënu ko gis yak sa njaboot rek la sa auto sa supermarché sa osan jeexna do ci ubbi ben entreprise nit ñi am ci njëriñ kon loolu amul intérêt intérêt personnel la du intérêt public lu du intérêt public nag jarul kii parce que yow yaa ngi newoon ci gouvernement bi ñu fal la ministère pour intérêt public yow nga def intérêt personnel kon dañ koo war a xaaj man loolu ànd naa ci loolu moom ànd naa ci moom gis nañ tamit euh, ni administration bi dañoo def système de pointage maanaam di xëy waxtu di wàcc waxtu. waa parce que loolu yoon la ndax nit ñi da nga daan xëy doo xëy si nit si ñeel la loolu amatul. buñ la tegee ci poste pour njëriñu réew mi da ngay dox pour njëriñu réew mi waaye bul dox pour sa njëriñ ndax yow mun nañ lay teg ci poste nga war a xëy liggéey yi liggéey yoo da nga dem feneen keneen si ñeel la ne liggéey si nga loolu àq la bu weer dee nga fayeeku ko loolu baaxut nit li ngay ñaq ngay liggéey mu mën a am barke jamono bi boo gisee nga jékki-jékki rek gis ñu ne lii xew na àq bu bari baaxul te gouvernement wu Sénégal dañoo ñeme àq kuñ ci fal say mbokk takk rajo ñiy jël ay njaga njaay ñuy tëgg di fecc kon boog yow yow lañ fal waaye faluñu réew mi réew mi buñ ko falee kenn war warta yëngatu comme ni Sonko di def waaw nga xam ne da ngay régler liggéey si liggéey pour askanu réew dafa am solo de li ñuy xeeb ci àq baaxul askanu réew dafa am solo muy teg nañ la ministère yow teg nañ la ci rajo bi kii teg nañ ko fii da ngeen liggéey li nga xam ne moo tax ñu teg leen fa waaye doo xëy dem ñu signer la nga xey dem ñu signer la fekk amna na feneen fooy xare mat loolu du yoon système de pointage bobu ànd naa ci gouvernement bi mom li ñu doxalaale ànd ci xana kay li gën nit ñi gën a gën gën soxla moy lepp lo xamne récupérer nañ ko ci nit ñi ne wat ci réew mi nit ñi gisaat ci sen bop muy marchandise mi muy santé muy essence muy gaz bi muy lepp na ndax nit ñi dundu rek lañ am bo xeyu lek do do wax dund rek lañ am lépp nañ ko ci delloo boo demee faju ji bu dee 1000 francs la nga fay juróom fukk loolu mooy réew réew dafa am nuñ koy yoree li nit ñi bëgg a topp leen ci Macky Sall li ko daaneel donc mooy lim sagar nit ñi waaw dafa dem dafa dem ba foog ne moom nit ñi moo leen gën looloo ko daaneel toppatoowatu nit ñi mais ñii feeg ñu ngi toppatoo nit ñi di am jàmm ci nit ñi waaye feeg ñu ngi bàyyi nit ñi rek nit ñu def leen comme nañ dem Macky Sall man nag loolu laa ci xam bu ma juumee ngeen baal ma. avant tout maa ngi leen sant di leen gërëm parce que région de compte lu war am la réewam mënul dox ci corruption ak njaaxum ak sàcc ak fen boo gisee réew mi ñu développé yëpp jub la nga bañ a jaawale sa pos ak gafak nguur bi bo gisee gars yi sonn jóge fii jëm bitim di ut dara ñun lu yor suñu kom kom ñun lu yor suñu momel buñu ko sambon ñu ar ko bu du wax ñepp dem kon am ñuy dem am ñuy des boo gisee yi di de ci géej di jël ay gal amuñu choix da nga bëgg tek amoo moy li ngay tek il faut nga parce que alal bi alal bokale la ñoo quelques personnes ñu ngi ci alal bi la def lu leen neex ñu des ñu ngi leen xool mënuñ ci dara amuñu suwa loolu di jël gal di dem bu loolu passé ñun ci ñaari télé gis lu ne ci ñaari télé presque bu taw bi 15 minutes da xale yi di jeg ay ndox xale yoo xam ne moom ay cinq ans sept ans dix ans di jéggi ci biir ndox yoo xam ne moom ndox bu baaxut loolu moom ñun dañu bàyyi ci xel ci loolu ci nguur bu bees bi dañu bëgg nguur bu bees bi bu ñu ñëwee ñu toog ñu jàmbar développement réew mi ñun yëpp kenn ku nekk gis boppam ci changement bi waaw léegi dañoo gis ni nguur bu bees bi dañoo def système de pointage manam kep kuy xey na nga xey ci waxtu wàcc ci waxtu yiñ def ci administration bi loolu ci xalaat. loolu lu baax la dégg naa jamono sengor loolu moo amoon ba jamono Abdou Diouf nga xey ci heure nga wacc ci heure presque euh, réew mi boo fekkoon développé nit bu ñu jógee responsable ñu nguur liggéey la ñu wax presque man Modou Modou la man bitim réew mi laa nekkoon def naa Afrique centrale ci Angola def naa. Europe ci Amérique gis naa ci monde bi liggéey rek moo ci mun a génn ci yeneen mbék yeneen affaire bi bu loolu passé ci mbay réew mi ñan ñu def sañu xel ci mbay ñu def mbay dundee ñu ñu dundee ñu bay ko presque am na ñoo xam ne ñoom ñëpp jàngu ñun mënuñu am ay poste ci gouvernement bi am na ñoo xam ne nag bu ñu amee liggéey seen gox wala bu amee liggéey seen région di ñu ñibbi jëm liggéey ñu njëriñee seen bopp ñu njëriñ réew mi waaw man sama gis-gis man non non que ko waaw. gis nañ euh, motion de censure pour euh, dissoudre gouvernement son bi. ah loolu mom xalaat gouvernement bu bi mom ñu ñu il faut ñu négocier ak ñom rek ñu ban ministre ne mu jël ci ancien gouvernement bi ñu sen bir ñu mun a ànd liggéey wala Njaay nee na boo xamuloo yoon danga ngay laaj boo laajul da ngay réer waaw man samay gis-gis noonu naa ko gisee ñu waxtaan ak ñoom ñoo xam ne li ñu njikkoon ñu nguur bi ñoom ñoom ñëw ay ñoom dañu ay nouveauté lañu am na ñoo xam ne ñoom xamuñu ñu waxtaan ak ñoom ñu jëlee leen ñu ànd ñu pousse Sénégal dem kanam waaw man sama gis loolu laa ko gisee. Sénégal mi ngi fay boru cinq milliards bis bu nekk. ci nguuru Macky Sall. loolu fan yi lañ ci jot loo leen ci xalaat cinq milliards la ñuy fay bis bu nekk ci nguur ci ci bor. man samay gis gi li may xalaat comme ñun lu ñu yor suñu géej ñu ngi yor suñu suuf ñu ngi yor macha allah pétrole ak gaz ñëw na képp ko xam ne fu mun a nekk ñu sàmb ko. ñu seet lu ñu mun fay suñu employé alal bu ñu am ci port aéroport géej dala euh, Falémé bu ñu ko sàmmee mun nañu fay ci employé sama gis-gis man loolu laa ko gisee. asalaamaaleykum mbokk yi na def ñu ngi leen di sant du leen gërëm. seen seen ñëw bi tey encore lu ngeen laaj ñu jëm ci réew mi li nga wax léegi ci motion de censure bi lu ñu bëgg a def comme que ñii dañoo liggéey ñii nee na mun nañu liggéey yaakaar naa suñu waxtaan rek mun nañu jubbo ñun moom baax a réew mi rek soxla kuñ defar réew mi rek la ñu soxla mag nañu ay soixante-quinze ans léegi ñu ngi fii am nañu ay xale ñu gi fi tëdd xëy ñu gontuñu dañ toppatoo xale yi liggéey ñu sàmm réew mi réew mi rek la am moom rek la am boo gisee xale yi di jógee fi dem feneen xam nga nag su fekkee nag fi nga nekk amul dara il faut nga dem wuti noo koy noo wutee rek loolu rek moo tax ñu ngi ñaanal ñu ñëw yal na yore yore réew mi jàmm ak salaam. yàlla mu oyofal mu yàlla mu oyofal nu ñu nekkee yàlla ñu juboo ci nit yi yàlla ñu juboo ñëpp ñoom politiciens yàlla ñu juboo ñëkk ci nguur yàlla ñu juboo yàlla ñu juboo encore ak sëriñ yi yàlla ñu juboo ak néew doole yi yàlla ñu juboo ak xale yi ñu a liggéey juboo rek moo am solo jërëjëf ma leen sant leen gërëm sant leen gërëm. waaw euh, nañu bëggoon xam lan nga xalaat ci opposition bu bees bi ñi nga xamante ne ñoo ngi attaqué. gouvernement bi nga un mois. Salam alaykoum... donc euh, attaqué gouvernement bu des bi dafa teel. Euh, dafa tel population bi opposition bi ñun ñep ñoo Ils ay nit lañ quoi comprendre patam patam bi ñu def ni mo anduma ci quoi franchement parler dañu wara dal d'ici 12 mois d'ici un an deux ans ben am ay par ñu commencé déranger ou bien déraper waaw loolu la gis quoi mais ni, ni, ni, euh, dafa teel dafa trop dañu xam ba ñu ba gars am 1 an 2 ans ñu commencé critiquer xam fuñ ñu koy teg aussi day leer quoi état bi deful li ñu ne carrément c'est vrai état bi warona li defuko c'est vrai mais même pas 3 jours même pas 1 mois d'abord Afrique ak il est Afrique ak léegi yàggul Afrique teewagul d'abord même pas 1 mois nañu bàyyi dérapage bi nañu bàyyi dérangement bi c'est des ils sont des citoyens compatriotes nañu jéem def lu bien gunge euh, état bi le le euh, premier ministre euh, idée programme Afrique on a développer Sénégal on a développer mais vous dee salaamaaleykum commencé à manifester dans le vide c'est dans le vide parce que sommes ni ça. C'est un d'abord Vous jëkkaguñu comprends nga vous pour installation pour Installation, guñu d'abord que vous mais beaucoup commencé da ngay que

la paix au Sénégal mais loolu bu amul au Sénégal s'il y a pas la paix au Sénégal à chaque fois dérangement xëy du am liggéey du am chaque jour bruit yi coow coow grève grève euh, dañuy dellu encore si ginnaaw dañuy dellu des des années 1960 ou bien des années 45 dañu dellu si ginaaw loolu baaxul nañu seetaat seen bopp ñu gëm yàlla toog ñu xam ne aussi euh, loo fi liggéey da ngay liggéey pour sa bopp mais da ngay liggéey aussi pour askan bi parce que s'il y a la paix on a tout mu ngi mel ni wér gu yaram boo amee wér gu yaram am nga lépp. Sénégal bu bu nekk dans tous les secteurs gis nañ ko grève yi n'est-ce pas chaque jour chaque jour problème chaque jour problème yi duñu daw comprends Le problème problème dans dans ce pays surtout à Dakar euh, donc nous la tous, ñu d'ici un an deux ans comprends nous, ñu may nous ñu may temps ñu may temps ñu may temps réfléchir gars yi peuvent comprends dans les 80 80% quatre vingt pour cent hein, bu ñu dénoncé euh, euh, dénoncé dañ ci am ben preuve quoi comprends mais bu commencé jamono bi mom day nek lu tar day nek aussi day tardé rew mi day tardé rew mi day nek coow rek coow rek coow rek coow rek loolu mënul dem quoi franchement parler coow baax mais bu and ak jamm bu and ak dal comprends nga loolu la ñaan yëpp population bi yëpp diaspora bi surtout aussi ñi ne ci kaw di yëngal nañu bàyyi yooyu. nañu liggéey ñu bàyyi aussi di critiquer comprends Diomaye Faye xaw ma ko mais ni ma ko gisee ku yaru la ku baax la aussi te aussi euh, Sonko Sonko de passage man góoram la man ñaareelam bi sama ñees la bu comprenez ñi yëpp dañoo bëgg a avancer dañoo bëgg Afrique avancer nekkuñu fi seen seen poche dañoo nangoo jàng nangoo fay ba ñu am li ñu am kon ñi si des si ginnaaw nañu liggéey soit jàng suwat liggéey soit jàng

côté yëpp santé wàññi mburu bi comme les séeréer yi am le pain <laughs> wàññi pain bi wàññi ceeb bi non wàññi dund bi vous comprenez loolu laa gis quoi waaw dañuy jàppalante dimbalante quoi non loolu la quoi. d' accord waaw loolu maanaam mooy état bi def ci ay taxawaay yu mat sëkk rek maanaam ay jéego yu mat sëkk parce que tamit euh, Sénégal dafa war jëm kanam pour l'instant parce tamit jël xaalis boo moomul jël xaalis boo moomul danga ko war a te et puis lu ñëpp bokk xaalis bi ñëpp a ko bokk maanaam nga jël loo xam ne maanaam lu 1000 personnes war a war a war a war a war a séddoo benn ba bëgg ko lekk loolu day metti te loolu moo ñu xaw a tardel te il faut état bi def ci liggéey bu mat sëkk maanaam ku ci jëloo moomul rek nga delloo ko wala yoon dal sa kaw maanaam euh, kër yeeg. auto yek lepp nak buñ bàyyi dara parce tamit lolu moñ ñu dimbali parce que bor dafa bari euh terre bi li ci nek ci bor kan xam nu toll berté bi c'est la même chose ak lenen ak lenen ak lenen lo xam ne kenn mënu ko wax tamit buñ bëggé Sénégal gëna dox lolu luñ wara régler ci la bok luñ wara régler ci la bok parce que tamit moñu dimbali quoi moñu dimbali parce que bëri na ñoo xam ne waxuma sax liñ dañ ci banque mais liñ ñu denc rek kenn xam nu mu toll te lolu état bi da cee war a loxo génn ko waaw askan mu mën gis sen bop man dal lolu la gis quoi franchement waaw ah, Sénégal jëm ca kanam voilà. système de pointage bi euh, gouvernement Sonko instauré ci administration bi. waaw ah, ñu ngi leen di bu baax a baax waaw loolu moom lu am solo la ndax loolu lañ doon yàgg xaar mooy xëy heure di wàcc heure parce que fii di bëri na ci genre administration yoo xam ne da doon dem da xaar ba midi wala une wala nga dem ba journée ñu ne la loolu léegi kiiwatul ñu ne la kii xëy seegul ngay perte sa journée ci zéro. ñun buñ sañoon moom euh, loolu lu ñu waroon yàgg a def la ñu ngi koy rafetlu tamit di xaar tamit ñëpp kii ko ñëpp confirmé ko ko kooku confirmer woon ñu teg la ay daan yu am solo di wax tamit ci wàllu ci wàllu branlon bi fii nii bëri na ay kéet ay mbir yoo xam ne da koy soxla xëy war a dem am ko mais pour pour nga am ko foog nga am koo xam koo fa xam wala ko mën lijjanti ko fa nekk genre ñun suñu ñu baadoo la yi pour ñu am loolu day metti am na koo xam day toog këram kayit wala lu bëri day ñëw am ko vite fait ñun dañuy xëy dem journée bàyyi suñu liggéey bàyyi suñu lépp xëy dem journée ci wàllu kayit mu duñ ko mën a am ñu ngi xaar nag gouvernement bu bees bii nag indi ci ay matukaay yu am solo voilà. ñoo ngi Sénégal moo ngi fay euh, boru 5 milliards par jour ci gouvernement Macky bi loo xalaat ci bor boobu. tamit nuñ ko gën a mën a wàññee moo ñu gënal moo ñu gënal. ñu xoolaat tamit dëkk bi nuñ gën a liggéeyaatee ci kii parce que gen parce que nekk jël xaalisu nguur gi yëpp ku nekk tabax ci ay immeuble ñuy tabax ci ay building yooyu yëpp lañu war a récupérer delloo suwaat si réew mi ndax réew mi am xaalis ñi nga xam ne daw duñu fay impôt tamit ñuy fay impôt ndax impo pour alalu askan pour ñëpp la ku nekk gis sa bopp ñun duñ nangu maire gerte caaf bi di fay impôt di fay ay juuti ñuy yor ay building duñ fay impôt loolu tamit na ci nguur gu jël ay matukaayam yu am solo. opposition bu bees bi seen taxawaay bi jàpp nga ni teel na wala teelul. no nañ may nit ñi nag ñu liggéey ñoom ñoo fi nekkan liggéeyuñu dara ñun dañ commencé gun nañ leen bàyyi ñu liggéey bëgg taxaw pour l'instant bëgg a taxaw ni dangay ngay opposé wu loolu moom ay affaire di caaxaan laa ko def wax dëgg yàlla. alors Xabane ñu la doon laaj euh, lan nga xalaat ci motion de censure bu. Euh, opposition bi bëgg duggal assemblée. waaw maa leen di ziar euh, di leen dalal bon man de li ma ci xalaat mooy ñoom ñu jéem a euh, góorgóorlu waa assemblée bi bañ a jéem a indil benn bâton ci ci roue gouvernement bi sinon assemblée bu tas rek lay lay lay lay ñu jural maanaam dañuy dissoudre assemblée bi demaat élection législative am fa majorité pour mën a doxal kon ñom pour baña euh, lolu baña am man gis na ne ñu jéem a liggéey ak gouvernement bi moy tane lolu lolu moy lima sama sama xalaat bu gatt boobu mais di jéem a kale fii di ndugalé ñuy def li wala lé bon dissolution de l'assemblée la fay gis mom la laa xalaat. d'accord léegi euh, ñoo gis ni gouvernement jomay Sonko bi euh dafa wax euh, reddition des comptes pour ancien régime bu fi nekkoon. wa lolu mom lu war la parce que lolu mom Sénégal yëpp ko demandé sax d'ailleurs Sénégal yëpp ñoo bëgg ñu ñu ñu xoolaat càmbaraat mbir li fi ñee def ñu xoolaat ko teg lépp ci yoon parce que il est temps que nag réew mi changé dañoo euh, un changement moo tax ñëpp voté contre le régime bu fi jógee pour teg fi bu bees voilà moo tax il faut loolu mu am dañ ko soxla loolu demande générale la dañ ko soxla moom très sincèrement. pour le cas de système de pointage bi ñu au niveau de l'administration administration. solo parce que li wara a changer dafa bari mom dafa dafa dafa dafa jot sax dafa jotone sax pour ñu def ko parce que man gis na ay nit yo xamanteni ay midi lañ doon xey 13h te bu démé seen bureau ñibi ñibbiwaat duñ liggéey mais gis na né lu am solo la waaw ñun daal ak régime bu bi mom li ñu ci dafa bari changement total lañ soxla ci ñom carrément vraiment ñu ngi gis fan yi ni euh, Sénégal ñoo ngi fay une dette de cinq milliards par jour ci euh, loolu yëpp c'est causé par l'ancien régime loo ci xalaat. ah metti na la <laughs> metti na vraiment parce que vraiment euh, suñu réew mi déjà réew mu dool la ñu lépp ay bor ay bor yoo xamante ne bari na trop ñu war ko fayat, mu tegwaat suñu kaw wax dëgg yàlla bon metti na waaw metti na trop moo tax man li ñu wax daal ci pour.

<laughs> waaw am na ci droit de mën nañoo opposé wu mais fi mu nii moom gëm naa ne duñu am dara pour l'instant nii nii no opposition bu dëgër mënu fee am. waaw parce que ñi fi nekkoon euh, opposition opposition opposition bu radical lañ doon def te ñi fi taxaw ni nar a jàmmarloo ñoom nekk seen opposant non duñ def poids mënuñu def poids face face ak ak régime bu bees bi